إن المتأمل لكتاب الله لا يرى أن التقوى ما ورد إلا لجلب الخير في الدنيا والآخرة وهي طريق الفلاح والنجاح من جسنجا بو تامبري تيري يالا بي بو يالا دي تري تراغال يالا من دو تي جيس لودول ني راغال يالا نيكنتي دو انديل جامبي لودول ييو دو انديل جامبي لودول جام تي ادينا اك الاخره ndax moo la yenni mu ne itam ragal yàlla mooy yoonu mucc mooy yoonu texe gis nga nit bu ragalul yàlla ci insécurité la nekk waaye bu ragalee yàlla am na sécurité parce que ragal yàlla mooy daw lépp lu lay lor te li lay lor mooy bakkaar bakkaar yi la yàlla di tere amu ci bu dul lor amul physiquement wala moralement mais day lor daw gi nga koy daw mooy sa sécurité yow nee na nit yàlla ba dafa nettali ne li lay wan solo si ragal yàlla li lay wan ragal yàlla ni mu amee solo moom commerçant la di jaay yore marchandise mu dem ba yàgg mu am ci matériel yi mu yor marchandise yi am ci bu am sikk am ci boo xam ne am na défaut bi muy génn ki muy bàyyi ci palaas bi muy jaayee mu ne ko marchandise bii dafa am sikk bul ko jaay wala boog bu amee ku ko soxla bu ñëwee di ko jënd bala nga ko jaay wax ko sikki si ba mu d'accord waaye bu ko jaay nii rek parce que man xam naa ne am na lu ci yàqu te boo ko jaayee noonu bu demee nga lor ko te loolu daañu ko layoo yow ma xiyam moo tax ku ñëw di ko jënd si nanga nga ko wax sikki si bala nga ko koo jaay mu dem ab diir am ku ñëw soxla matériel bi di ko jënd ki koy jaay xëy na mel ni man mën na am sàggan mën na am fàtte mën na amit tay tey teylu mu jaay ko matériel ba te waxu ko ca dara waa yóbbu matériel bi dem yoon ca kanam patron bi dellu si fekku fa marchandise bi mu ne ko waaw ana matériel bi mu ne ko jaay naa ko mu ne ko koo jaay mu ne ko diw sàngam dëkk barab sàngam mu ne ko wax nga ko sikki si mu ne ko déedéet waxuma ko mu ne ko lu tax waxoo mu ne ko dama ko fàtte mu ne ko da nga ko ko war a wax parce que loolu du yoon est-ce que bu xamoon ne sikk la ndax dana ko jënd ne ko jox ma xaalis bi mu jox ko xaalis bi mu dem wëri ko tegtal ko ba fekk fa mu dëkk nuyenteeg moom ne ko marchandise bii nga jënd mooma andi parce que matériel bi dafa am sikk naam bàttale woon naa ne ku koy jënd nañ la ko wax boo ci d'accord nga jël te nee na ma waxu la dara ci matériel bi ma ne ko loolu baaxul àq la nañ ko delloo xaalisam parce que mën na am du jëriñoo matériel bi te bu ñu ko rëccee fii duñ ko rëcc yowmal xiyaam xaalis boobu laa la doon indi waa ji téye ko ay rongañam di sotti mu jooy ko yaa baax yaa baax yaa ragal yàlla waaye waar nga ma tey de est-ce que xam nga ne ay faux billets laa la jox waaw ne ko xaalis bii ma la jox faux billet la dama ko yore woon bëgg mu génn sama loxo ma ne naa dem matériel bu ma ci am rek baax na ma jënd ko ma ñëw jënd ko waaye jëlal sa matériel te delloo ma sama xaalis ñemeetuma laa bàyyi nga dem te lii rectifié wu ko parce que li ngay daw yowmal xiyam moo ma nar a dal man ëllëg gis nga non seulement ragal yàlla daf leen a sauvé ci àddina te dina leen sauvé ji àllaaxira nan na leen sauvé ci àddina kii mën na am bi muy dem ci waa ji ñàkk ragal yàlla moo tax mu bëggoon a wecc ko ay faux billets xalaatul sax yow mal xiyaam konoon dina lor borom boutique bi dem ba jënd jot mu dem di jënd non seulement du mën jënd waaye tëdd kaso mën na ko cee fekk ndax faux la yow waaye ragal yàllaam moo ko sauvé ndax lan moo ne moom comme matériel bi jaay nañ te waxuñu waa ji sikki si du jël xaalisam ragal yàlla ba ñu jël xaalis boo xam ne jaarul yoon moo ko sauvé ba mu mucc ci ay faux billets moom ba mu mucc ci faux billets kon ndeke ragal yàlla nee na mooy buntu texe waaye mooy buntu mucc waay moo tax bu ñu ko xamoon société bi lépp ay jaar yoon wallahi lépp lu ñu sonn ci nit baax nañu fexe mu ragal yàlla moo tax société bu amul diine musiba la doomu aadama kenn mënu ko contrôler lu ragal yàlla nee wa fi ihmalha taqa'u al-masa'ib wal-mihan wa taqa'u al-uqubat al-ilahiyya na neenal ragal yàlla sagane ko nee wallahi ci le musiba yak mbugal yak tartar yak yeb di tuuru ci sunu kaw xoolal misaalu li xew ngor démb rek da ngeen ndaw soosu ñuy wax ne ray nañ ko ndaw soosu ñuy wax ne rey nañ ko te ki ko rey enquêteurs yi nee nañ ñi ngi ko jàpp yi bu mbuur biñ ko laajee lañ la wax da doon jaay boppam mu jënd ñoom ñaar ñu fanaan xëy na nee na satisfaction ba des na ñu di ca xeex ba mu jam ko ndeke dee na mu daw ñu jàpp ko seen ñàkk ragal yàlla leen yàq moo tax mu ne wa fi ihmaaliha taqaul masaibu wal mihan wa taqaul uqubatul ilahiya bet beddi sa jur yëpp bàyyi sa mbokk yëpp dem ci digg ndakaaru mbaa fu la neex wut fa sa appartement dajee ku mel noonu moom it beddi ñëppam dara ragal yàlla newul ci moom ngeen daje seen ñàkk ragal yàlla indi leen insécurité ba ngeen xeex mu rey bakkan boobu dem na lan lay lay ci kanamu yàlla yàlla rek nga xam bakkan bi ci des a ngi tëdd fii ci kaso bi mënatul dem mënatul dikk ñaata at la fay def plus ngay xalaat bàkkaar boobu yow xalaat bàkkaaru njaalu xalaat bakkaaru faat bakkanu doomu aadama moo tax nee na bu ragal yàlla amul ñun ñëpp ci musiba la nekk ñun ñëpp ci mbugal la ñu nekk yanuñ ci yàlla musal ko defee nee na sunu borom subhanahu wa nee na wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasibu nee bu ngeen ragalee yàlla lu ngeen dugg ci xat-xat ma génne leen ci nit bu ragalee yàlla lu mbir tar-tar yàlla dana ko ca génne na fekk mu liggéey ko démb hmm? waaye waxuñu nekk ci li la neex ba bésu nattu ne këpp sa kaw nga jóg ne ragal naa yàlla hmm? ngay wattu sa bopp njëkk dara di ñëw di bàyyi xel sa borom njëkk dara di ñëw di di di moytu lépp lum la moytu ko di góorgóorlu ci jaamu ko ak di sonn ci di ko ñaan mbir moo dugg ba ne tey mu yàqu mbaa tey mu torox dañuy xëy rek seen la ci leneen lu ko gën kooku yàllaa ko garanti nee na itam danaa garanti sa wërsëg wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib nee na fu ñu foog ne sa wërsëg fa lay jógee rek danaa ko génnee fu ñu foog nee na nit bu ragalee yàlla dana yem ñëpp kii fan lay jëlee lu mu dundee même boo ko tëjoon ci ruq bu kenn nekkul bu lekk ak naan jotee yàlla jox ko lekk mag naanam kon nee na ragal yàlla non seulement muy buntu muccuwaay yi waaye nee na muy buntu tex yi fii ci àddina ak fële ci àllaaxira nee na kon ñoo ngi dénk sunu bopp di dénk ñëpp ñu góor góorlu ci ragal yàlla di ko dénk njaboot gi it ñu bàyyi ci xel